asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki daara ji ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare tey nag ñu indi ñaan gi muy ñaan gi nga xamee ni booy dem jàkk moom ngay wax booy dem jàkk ci yoon bi ñaan gi ngay ñaan gi ngay wax moo nekk ñaan gi di ñaan ko am solo nag moo tax boo xoolee ci kaw dañoo bind duwaawu zahabi ñaanu dem ilal masjid jëm ci jàkk ja mooy lii ñuy bëgg wax allahuma yow buur bi ijaal yàlla nga def fii xal bi ci sama xol nuuran leer wa fi lisaani ak ci sama làmmiñ nuuran leer wajaal yàlla nga def fii sama yi ci sama nopp Nuran leer wajal yalla nga def fi basari ci sama gis Nuran leer wajal yalla nga def min khalfi ci sama gannaaw nuran leer wa min kisama ak ci sama kanam nuran leer wajal yalla nga def min fawqi ci sama kaw nuran leer wa min taxti ak ci sama suuf nuran leer allah ya buur bi aati ni nga ma jox nuuran leer masha allah di ñaan ko solo kon bu ñuy dem ci jàkk ja pour julli ji ñaan gi la wax bu ñun ñëpp ñu mok ñu mokkal ko te di ko appliquer ñaan moom boo appliquer rek day sax ci bi té ñu xamné nak ñaan moy ngannaay julit bi bu défé ñu gëna fonk ñaan jullit bi ñaan moy ngannaayam kon nen di jang ñaani diko mokal té diko di ko appliqué rabbi in uridu ila al-islam sata'tu wa ma tawfiqi illa billahi tawakkaltu ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullah